am code waaw dafa am fooy teg bal bi naar bi la naar bi oh ah, am na kuy commencé dégg cot bi oh am na kuy commencé dégg code bi am na ku koy dégg attention attention c'est autour de Adama Fall Adama Fall ah, xanaa njëriñ séeréer nga jëm ya foo jëm c'est bon Adama Fall maximum de concentration pour Doucouré pour tir penalty concentration ma ngay napp ma ngay napp kip staba mu koy napp attention oh mais lii rafet na bravo Doucouré et je rappelle que Doucouré c'est un bon tireur ah dugal kat la c'est un bon tireur <laughs> euh, xam na cible te mën na attendre cible dugal kat waaw gis ngeen ni mu def Baye Mor tipsta bi ah oh, attention oh il a manqué de peu yaa ngi mel ni Sadio Mané bu tegee par bal bi wala dóor penalty ñëpp a tiit il a manqué de peu ñëpp tiit ah Baye Mor ñu ñëwaat ci Baye Adama Fall ah Sofia ah fu dugalee te Adama Fall dugal day génn émission ah nga ni waaw ah là là il qui a marqué le but pour la 2STV mu ngi ñëw mu ngi ñëw pour tenter sa chance ci tir au bu ñuy amal eh, lii dafa jar jal suuf ah Sofiane li ngay def ni yàgg na de football bii footballu jal suuf eh, so da nga doon football yow. man de waaw Cambérène de football rek laa fa nekkee woon. soo dugalal loolu. bu eh, am na loo bàyyi jàmbur mu joué. so ay ci ñu dem so so mën nga ko de mën nga ko. très bien so très bien très bien so so pas mal pas mal ñu defarwaat so. yàlla baax na dama jëlaat force dégg nga pas mal waaw merci frère merci yàlla baax na am di de wóor na yàlla maa koy tane am mais yéen du ngeen bàyyi jalu suuf bi ndar la am ni nda kaay puus balaa mu ñu dóor bal bi am na yoo xam ne yu sew da ci amaale am di mignon ku min kaa ngi nii xàmme kaa ku mën a dugal ku yàlla may si xarañte ci lépp lu jëm ci wàllu dugal ah ñu dem DG pare nga yox la jëli ko yox la ko c'est pardon mais il a manqué de peu la lucarne Amdy Mignon la lucarne ah il a manqué de peu <laughs> ñu jëlaat ko Doucouré Doucouré moom moy dikk Sophia waaw bi na bu si kanamee tuuti bu suñu invité yi dikkee daañu amal quelques questions interview ak ñoom. le temps que ñuy préparer. li nga xamante ne moom mooy le parcours bi ñuy def tey ñu ànd ci ak toute l' équipe technique de la 2STV. waaw et tout la crème des animateurs. nee na nga tudd ko dafa war a dugal. ah waaw Mbodia Mbaye. Badiane. Mbodia. Badiane Mbodia Mbaye attention. yàlla matul daanu. attention. muy bàjjen bi aja Amdi Mignon très bien oh Messo Messo lii dafa neex non torop ka foore ka foore ah, ci beau temps bi sous la pluie fi mu nekk am na mami mu ma envoyé message naa ma moom mënul dara ci dugal ah Doucouré kay waaw benn jël tàmm nan ko waaw lu leer laa la mer nga nag naam bala moo jeex sax ñu fii créé yooyu ñuy créé ay affaire mais sax nuroo foofu laa nekk kenn créé fexe na ba fanaan <laughs> Adama lii laa bëgg am na millionnaire li ko métti ci àddunaam lu tax dukkure dugal moo tax mu énervé jóge fële ñëw ba fii pour def justification pour dugal Sophia, on y va. Amdi, Amdi, Amdi, Amdi, Amdi, Amdi, Amdi, Amdi, Amdi. Papa. Amdi Dogo, c'est le pouce bala moule d'or. Amdi, Mignon. Amdi, Amdi, Amdi. Oh! Mais quel but, la Mignon! La Dougala! Mais quel but! Mais c'est du jamais vu! La Dougala! Oh! Bravo! Le Dougala! mais am di jëlal parapluie may naa la la dugalaar. wan nag lu ma morom. man turu laa xam fan la. <laughs> waaw turu bi mu ngi nii ci Kipsta bi. le trou là fii la bali war a jaar <laughs> fii la war a dugg. voilà la trou le trou waaw boo dugalaatee mu dugal. yox la te dugalante newal balaa laa turu yow dafa ndànk rek ngay jaay waale nii mënoo dugal tandus dugg de voilà xale bu ndaw bu ne ci ginnaaw du gënaat Habib Doucouré nee na am na xale bu bi nekk ci ginnaaw kaay di di génnewaat bali ayca defe naa bii mooy bu mujj bi ayca gis ngeen ñu ngi woon fii tonton paas paas ñëwul ñëwul ñëwul ñëwul ñu ngi woon fii nga xamante ne moom mooy tir au but xaaral ma tenté sama chance oh là là là là là là là là là là là Sophia mu ngi de l'autre côté avec notre invité Mirma restez avec nous si vous nous joignez à l'instant vous regardez Vacances de